asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateur u Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag maa ngi géejawaay fu ñuy wax Nimsaat wala Amo Siis loo ci mën a dégg daal maa ngi géejawaay may profité di nuyu waa géejawaay yëpp bàyyiwuma kenn waa képp kuy doomu géejawaay daal Babacar a ngi lay ziar tey nag ma seq man na la seq waxtaan ku nga xam ne doomu géejawaay la waaye tamit doomu kajoor la parce que buñ ko waxee doomu Ceneba la muy guy gi tey nag moom palmaan la xëy maye xaw ma palmaan xaw ma cuub xaw ma VIP mbër maa ngi lay bëggee. yàq sama kii bi nga am ne cuub ak yooyu man VIP laa sol. VIP nga sol Ndiouga Thiam moo jaar foofu bala may sa. Ndiouga Thiam bala mañ sa. Oh, di wax ne auzu billaahi seytaan rajim mm-hmm. mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw ban sant yàlla julli ci bi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ sëñ Asek borom digal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ak wér di sama xalifa général Baye Abdouram yàlla suuf sedd ci kawam di jaale tamit eh, sama di ñaanal sama maam Cheikh Ahmad Tidiane yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana di jaale xalifa Baye Fall yi mhm. eh, yàlla na ko yàlla teeru àjjana di jaare waa Laayeen waa mhm. Sàlleen mhm. vraiment ñëpp ñi nga xam ni ñoo ñàkk seen bakkan ak ñañ fa fekk yàlla na yàlla yërëm yàlla mënu ko yàlla na ko yàlla def ay nuyu suma papa suma yaay suma grand frère Modou nuyu suma askan bu baax ah nuyu rek nuyu suma yaay Ware Sarr suma grand frère Nas Mambay a Paris Bira ñoom Caama ñanga maire Waré saar képp ku nekk kër famille Waré saar rek maa lay nuyu di la sant di la gërëm nuyu tamit sama koñ Père Mansour xam nga ñoom Lamine ñas ñoom Omar ku ci mel sama booy Pape ndooy xam nga ay Bolo John Sina bu Thiès bàyyi ma kenn nga xam ne Vera daal dañuy guy bëggee guy gi parce que ñun amuñu lu dul tamit ñi lay bëggee ñi nga nekkal bu mettee ba metti ñoom ngay gis su mm-hmm. neexee ñoom ngay gis kon defe naa booy def lu mel nii rek kon mm-hmm. nga ko ci nuyu ñu gis seen bopp di nuyu Sylla monsieur le maire Séré Nabou Diagne mm. borom naa TV ku baax la xam naa dinaa boole moom naa TV bu la daamar moom ku baax la daamar oto non dina la jox incha allah mm. euh, loolu de guy gee ko wax gars yi non Sylla joxal ma Babacar daamar kooku suma waaye suma xar la mooy maire Yoff mooy maire Yoff nekkoon na maire mais fi noonu day nekkaat maire parce que maire xam nañ xam nañ seen njëriñ daal. Ah. mooy Sylla naala la booleeg moom daal te man samay wax moom ay preuve la. waaw man ku dul war a saar du ma leen lii la wala laa la. xam nga ko ci man ci xam xam nga ko man. waaw kon Sylla incha allah naala la booleeg moom. yaa wax loolu di nuyu Bala Niang Serigne Mame Diarra. Mhm. suma xarit la. Mhm. suma lonko la suma nit la suma confidence la. Mhm. nuyu sama defarkatu pneu bi nga xam daf ma sonal trop Abdou Baaxe ah. trop trop su soo amee daamaal moo la jox pneu yi Babacar Jaxal képp yàlla nañ fi wax loo xam ni nit dañ ko dégg bu ñu xeeb nañ fi wax tamit day neex askan ni yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def agasa amin barke sëñ naa mamit mais dañ ciy profité tamit jàll ah Serigne Abdourahim Seck xalifa général Ceneba mm-hmm. di ñaan yàlla taf ñu si barkeem jégal ko xare ko aljana amin Babacar maa yow ñoo bokk fu ñu dëkk yow moom mu sax jaal kon des nga wax ma ko nga buñ génnee ñoom man la ma wàcc ba pare yow doog a juba rek waaw man dañoo bokk horaire da koo jaal lambaay ndondol yëpp benn la nangal ma yëpp parce que yow daw nga fa horaire non nekkoon naa fa bu baax parce que maa horaire ànd naa tamit caale bu bu bu bu bu ndàngal ma bu bu sëriñ bi dana nekk kii beneen na euh, Lambaay. Lambaay ah, waaw Lambaay bi muy accident de defe naa sax man ci laa nekkoon oto boobu. mais nag waaw oto boobu waaw mais sant yàlla la. tey ji muy fàttaliku bu rafet. Mhm. tey boo Bawol ne mhm. Casamance ne Fuuta. Mhm. fu ne incha allah. <laughs> ja lang naa fa dawal ko tamit kon loolu ah. fàttaliku bu rafet la. am na solo waaw la. léegi fi may ñëw ak yow lang nga dawal nga lu ne def nga ko waaye nag fa nga mujje mooy làmb. macha allah ba nga ca duggee ba tey tamit li ñu gis mooy wane nga ci fulla ak fayda ba yàlla dogal nga yegsi ci tey fi nga a yegsi maanaam di ci am li ci sa ay morom di am macha allah parce que loolu tamit liggéey moo koy maye ak bëgg la ngay def mais dafa am lu garaaw lu am. Mhm. mooy sa diggante ak rëg-rëg ba mu taxawee ba tey yàlla dogal na ma suñu see wax maak ak yow. jël nga ko dix fois yow. déet nu ma ko jëlee dix fois. est-ce que matul neuf wala dix. laaj sa caméraman yow kay laay laaj yow mi koy topp. topp kat. yaw miy topp ndax jël naa ko dix fois yow suma nit nga yow lépp loo def dama koy topp. nous sommes nous ah, mais tamit dama ni jël nga ko dix fois weddil réponse nga ne nous sommes. nous sommes benn lañu mooy nous sommes nous dans nous waaye faat naa nasara yow aayoo ci. déet waaw aayu ma ci de waaye xam naa ne xam naa ne. te yow moom ko aay di saar papay Dara Sarr papay Dara maa ngi Dara Sarr parce que bi ma sax démb ñoo nekkoon ma ne ko Babacar moom tey bu ko jël émission am na solo di nuyu Maawo Cissé tamit yombal nañu yombal yi non ma si la jël waxal ku baax la ma ne ko Babacar moo ma sonal bëgg maa jël si mënu ma non waxal ko ku baax la nii la ma ko waxee di nuyu waa bokki gi yëpp waa bokki waa njuum waa tréji waa aylala waa galaji Galaye waa Matam waa xunu ko xayre képp fu Haalpulaar nekk maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu Haalpulaar yi man tamit mais nga ma na la jël ku baax la wallaahi wallaahi taala dina soxna Asi mi nga xam ne moom yàlla def moom ah, Asi maa ko takk ah, gi foo nekk yow tamit nag Asi Gaye ba ko maa aussi moo mat quatre ans xanaa Asi nëbbu na moom la ah, takk deuxième femme sama xarit la Asi waxu la loolu waxuma loolu mooy ñaareelu maa aussi sa nit ku baax Asi Gaye xam nga tax ma ne ku baax la waaw dama mën a dama mos a wax benn intervenir ci sul journal journal am nu mu tuddoon sax benn journal bu mu yoroon journal écrit waaw mun ma mun ma doom day du ma dugal lii ah. fekk ma tàngoon munuma du ma dugal lii ci laa ko jàppee ba tey moom aasi moom aasi munuma dugal lii du ma ko bind xam naa sa température fi nga tollool la dëgg la wuute nag tey ji nga xam dañuy yaakam bi Babacar da yaakam bi nga def exclusivité mu def ko tiitéer la ko guy euh, très danger ak xawma la la rek la entré ah, rek ñu bind ko de lu mu wax gaa yi bind ko lu wax gaa yi teg ko euh, yàlla nay doon jàmm léegi nag Reug Reug nee nga jël naa ko dix fois hmm. parce que li tax loolu mooy ah ñun suñu liggéey la ñuy def te yaakaar naa ne li tax ñu ko doon jël bokk na ci cadre sport bi muy def boole kook làmb muy MMA bu jógee ci ay combat am gañe ko ñu dem tamit def suñu liggéey waaye man loolu lépp dama koy teg fële li may wax mooy sa digganteeg rëg-rëg. bon su ma digganteeg rëg-rëg parce que man maa ngi rappelé wu am xam ne yaa ma waxoon fii sa kër sa ngénte laa ñëwoon dégg la micro woon ma rëg-rëg ba ñu ma ko mais buñ ma fayee li ma bëgg ma jël ko. loolu laa def maa ci yoon man Baba Gassama. bi. waaw sama waxi daaw ak sama waxi ren ñooy ngoo xanaa nga da nga naan tàng laa ciy boole mais ñuy méngoo fay nañ ma jaral na ma au passage nuy nuyu suma grand Malick Gakou di ko nuyu bu baax a baax bi combat bi dëgëree bu dëgër ba dëgër mu des benn som moo ne wax ak ak nas moom moo ne dina ko gérer gérer ko kon defe naa ni kooku tamit bëgg na làmb te mënoon na cee Gakou mu leer tey mënoon na cee neutre comme nit ñi ne Youssou Ndour mën na koo tëgg wala maaw mun na koo tëgg mais bëgg làmb moo tax mu nekkoon ci diggante bi fekk jamono boobu ma jàppante ak Lamine Samba mu dox ci diggante mi def woo ma woo Lamine Samba muy lu rafet lu muy def ci suuf loo xam ni jar nañu médiatiser ko mu Malick Gakou ku baax. combat bi de na coow balaa déggoo ma la taxaw mu amoon benn somme bu dëgër bu ci desoon nag. somme bi ay millions la woon wala. waaw millions waaw ñaata millions. non loolu garaawul léegi après léegi ñu wax ko mu ni maa garaawul dina ko gérer vraiment. Gakou teewul teewul vraiment maa ngi dégganteeg moom ça n'a ak làmb ak ak làmb moom li mu ci war def ak yooyu moom mel na noonu moom ndaka jekk noonu la mel. day déggante ay diggante déggante làmb dafa bëgg làmb moo tax ñu defal ko ministre des sports yor na CFC lu bari waaw bëgg na xam na sport daal ok moo tax xam nga vraiment duñ mën tamit lu sant ko gërëm ko leer na jot nañu leera loolu tamit mhm. ci askan wi xam ne tamit combat bi taxaw na waa GFM entertainment taxaw nañ ko mais ginnaaw yàlla tamit moom gérer ci part bu am responsabilité. moom Malick Gakou waaw parce que tamit jom yombul. Mhm. combat bu des ay kii muy combat mag ñëpp bëgg ko. Mhm. mu ne man maay gérer nangam yombul. Mhm. te te te de ay million ay millions yee. ok am na solo mais adversaire bi. adversaire la taay la. ñu bari ne nañ adversaire bi am na ñoo xam ne dañ ne waroo kon koo jël ñeen ñi ne war nga koo jël. parce que ñi ne waruñu waroo koo jël fi ñu ko tënk mooy maanaam mbapat mi dem na ba kenn mënatu ko cee daan. lit avec frappe mbër daanagu ko ci ma yombalal rek nit ñi nee nañ moo mën moom ëpp gàllaj ma ëpp doole yombal rek bu ay fat mbappat yooyu da ngay def ñetti point web rek moo la mën doole moo la ëpp moo loolu yaa ngi koy dégg bëree non déggu la da naan nit ñi moom ah, du ñëpp nag mais part mesure moom ñi ma xam waaw waxuñu loolu mais ñi moom ñi ma xamul waaw mooy loolu des ma ñëw fii maag bàll bàlla ñaa waaw léeg ma ñëw fii mënu ma diw diw woo ma téléphone ma jël ko déclenché mais loolu sax bàyyee naa ko léegi dama lay bàyyi rek nga wax après Euh, am na benn gaynde ba ma joxoon barki démb bañ xaw cee tàngalante man ko yow ci ñan condition nga ko teg ci xam-xam nga ko teg wala ci bëre wala ci lan ñu waxtaan mais après bi ma ko waxee moom li mu ko dégg na ko ànd naa man mais loolu tamit du solution li solution mooy li ñuy wax mën nga ak mënoo am nga doole amoo doole demal def li nga war a def yàlla nag mooy borom ndam xamuñu ndam fi mu nekk bis bu jotee ñu ñëw indi li ñu war a indi taxaw dëggal suñu bopp comme def ko ni ñu ko daan defee wala ñu yokk ko te incha allah bii mooy raw Babacar mais ñi ëpp ñi ëpp comme ni nga wax comme yow yow yow say français nee nga parti majeur bi nee nañ ñi ëpp moo la man ñu est ce que tegu moo la ëpp doole nga ci wala àndoo ci man na lay jëlee nit tey bokk ci làmb bëgg jël bi tey di bërig nit ñu naan moo la man nga koy nangu xanaa ma dem toog dem defi leneen man rëg-rëg mënul la xalaat yow sa waay man góor bala moo bala moo ne moroomu góor moo la man ngeen laale ba pare ngeen laale bis bu ngeen laalee. waaw ngay xam kan moo man hmm. bis ngeen laalee. waaw seen yaram tampon. waaw dañuy xam kan moo man ak kii mooy kii. Hmm. waxoon naa ko dinaa ko waxaat mais yooyu yëpp ay détails xam lu li problème bi jël na jël na lamb ji léegi mu ñëw soreetul. waaw am nañ date dans quatre mois. dans quatre mois dans ngeen bëri dans quatre mois cinq jours xaw ma ñu bëri. soreetul Babacar wax yow musuma ci wax ak yow moo tax wax ci yow suma nit nga dafa naa war waroon nañ def émission lu yàgg. bien sûr mais amoon liberté pour def ko te amoon ndigal te def ko. moo tax bi ma woowee démb wax dëgg yàlla. deux jours trois jours nañ ko def n'est-ce pas la. noonu la ko man nekk ci yoon ni man it dinaa ko def force. waaw incha allah bu neexee yàlla. parce que tamit gor ca wax ja te suma nit nga suma waaye nga. <laughs> léeg-léeg sax coow bari mais damay gis ni ngay doxee di ngay doxee daf may neex. moo tax ma ni naa respect samay kàddu ak sa musique ak sa site bi bees bi xam ne yaa a ñëw. Equivox Equivox waaw. ah macha allah muy site mm-hmm. am solo ci làmb. Mm-hmm. mais adversaire bi dinaa ci des de muy rëg-rëg. rëg-rëg day duggoon na géejawaay mhm. daan fi Balla Gaye Junior mhm. yow dugg nga biir lamsaar mhm. daan nga fa nees daan nga fa sitta daan fa coppet daan fa coppet kon ñetti nit daan nga ko lamsaar waaye nga yaakaar bii yoon parce que bu ne lamsaar ne caaro ak jàmm gën benn secteur bi la nga yaakaar ne bii yoon ndax la amoon mën na amat parce que nag non guy gi da nga ni caaro ne lamsaar bokkuñu bëre bi bokkul mais maanaam sitta xam nga moo ko rëg-rëg dañuy faral am li ma am li ma am li ma am caaro yi waaw non damaa juum li ma am fële. Lamsaar Lamsaar. waaw Reug Reug amu ko fa. lu tax loolu. non dama la ko xam dama ko xam rek du lu ñuy wax wala jaxase wala nangam nangam. Thiel mig la te saako bu yëngu dë saako fees dëgg-dëgg du yëngu nder lay def waaw te defe naa ni ñay moom bis boo juumee boo ba rox ko ci sën. Hmm. Euh, su ma juumul poussière baa lay fatt nga dee. te defe naa ne moom man nder laa def rek toog am na yoo xam ne sax jërul. moom daa ruux ñay ci sën. ëpp na ko def na lu raw loolu. rëg-rëg waaw dafa loolu yuux ñëw ci na loolu mais li am solo daal ndax li ngay wax ni yaa ngi ko non li ngay wax ni dama bëgg nga ne nga daal yow est ce que di nga xool rëg-rëg rëg-rëg ak fi mu jaar giri deux mi mais seetaan nga yow samay combat ma ñëw ci seetaan naa la est ce que mos ngaa gis lu ma wax signature defuma ko lu wax signature man defuma ko dama laa seetaan seetaan dam non dama ne est ce que lu mos ngaa lu ma wax signature defuma ko lu ma wax ci télé defuma ko dañ naan dof bi yàq na combat am dafa ëpp rek ngay dégg waaye arrêté na daw na

non man Abdou Bazzi mi ngi may dégg Ambra Sall mi ngi may dégg. y a des niveaux de technique yu ñu ci man soxla ko ci man yóbbu ma équipe nationale maa ngi ñoom l'an 2000 Pakala Famara Thior Louis Thior ñun ñoo fa nekkoon di toj. tey jii Louis Thior bii ngay gis ni ñoo fa nekkoon. Mbalka Mag Mbalka Mag. Ndeysaan mos nañoo xëpp lalam benn saafara kenn déggu li bi wax. nekk foofu lu doon wax di làkk olof ak séeréer waaye Louis kay làkk làkk rek foofa la ma neexee ba tey nag. waaw ma koy mbalak. Mhm. man fa la nekk ak xarit l'an 2000 mii ngay gis tey. Fallou Galas l'an jël ma tef ma ci boppam. Mhm. boobu séeréer à côté. waaw laan tamit tamit séeréer la mais man tamit wax dëgg yàlla boobu amuñ amitié bi mais daanaa dem seen kër yéen dem demaan yu ndaw yi parce que ku ñu wax maam Kumba soxnaam sama xarit la woon mhm. ak ñoom Dieye ñoom Abuja xam nga ak ñoom aada sama xarit lañu woon l'an 2000 boobu la nekkee sama jël ma léegi l'an 2000 moom le daawul lekk lu bari luñ ko centré mu ko yow ngay lekk rek équipe nationale ma yow équipe nga jotoon dem regroupement wala fiñ la fa fa. ma yow maa woon regroupement. fan. Eh, eh, kii Seneps bu Thiès. ok Babacar man damaa mbapat de. arrêt Diall Mbaye fii toj naa ko. ci mbapat. man muuma ki fi të maa ko daan vendredi daan ko dimanche. Omar Fall ki daan vendredi daan ko dimanche. mi tëw ak Modou Lo. moo da nga maa dese dama ne ki fi të muuma mi fi tëwoon Guédiawaye. dama ko daan teere Ndiarème. waaw daan ko dimanche kan sax pour final. tey papakat yàlla na ko yàlla yërëm père papakat ak ñoom ñoo ñëwoon ñoom Ndiaye Malick ñëpp école Balla Gaye keroog a na fa quatre personnes hmm. ñu boole maag xaw ma Ndiaye Malick xaw ma bu nekkoon ëllëg biir waaw ay minute ëllëg ay minute waaw yaa ngi ay yeneen yeneen ñoom sumay nit lañ du yoon sax ma naan daan naa ne yow ci waaw non loolu lu passé la rek te garaawut ñu war a final moo am trois cent mille paye na nga am ma leen ñaar fukk ko ci lekk ñun mul tax ma leen ñaar fukk ko ci lekk séddoo wal azim papa papa père papa Kane ci dëgg man maa ngi ci fenn wallaahi wal azim ay millions laay lekk laa wax nii. kon daal yow su ma la déggee ci Mbapat équipe nationale yaa ci jiitu Reug Reug. Thiès maa leen nuyu bu baax Thiès ku ñu wax xaar mbay. waaw ku ñu wax xaar. waaw euh, ak ak ak ak xaar ak kii euh, euh, ak ak ak ñu doon tëkk mba mbabari Thiès. Bayzal benn mën naa la mu doon Bayzal téléphone. quatre ans. may bëre Thiès kenn mënu ma faa teg suuf gis naa fa sa photo yaa ngi mu doon te ngeen ngeen bu taxaw waaw waaw moo ma ah, daan quatre ans may bëre na la waaw moo ma daan quatre kenn mënu ma faa daan barke sëy naa sama ngeen musul laal Thiès parce que moom moom laaj naa ko mu ne guy gi dax mën a bëri mu doon moom wax na loolu quatre ans Thiès kenn kenn te final bu ma bëre maa ngi ko bëre cinq secondes du mat une minute da nga ñëw ma déclencher mbot mais defatoo loolu dinaa mbot xam lu gën neex arbitre yi jamono yooyu day lëndam ak lëndam ma yan la suuf mais damay mbot ba tey damay ah, barke alxuraan ku ma song ma mbot la ma jege saytaan kajoor ma mu ñàkk a ngi déggante non kooku suma lépp hmm. man dama moom mu may tël ba sama tànk xonk sama band yi may takk looloo ko waral. Ah, waaw te sunu bu mënul dóor tànk saa kajoor bi ma door tànk dama mel ni plaatu bu tuur bu tas. di ma ko def di ko def ba mujj gi. waaw mu mënatumaa daan mënatulaa dóor tànk. mënatumaa daan laa sax laa yor. ma xam ne ma li may tarbiyu mokk na. sëriñ bi boo bu la jàngalee yow ndongali. waaw nooy def doo dem wuti xam-xam. te combat bi kon saa kajoor gëm nga ne kele bi moom moo ko yore. te bu la ko joxee di nga waaju du am sens. moom mi ngi may dégg moom lay dégg mu laaj kale ci ci école bi. am naa fa waaw ma Mao ñoom ambulance ci li waat di maa ngi mooy kaamil li ci ambulance sa saa yor li ci ambulance ambulance moo ko jox mais man saa yor moo mooy jox. te combat bi moom la fa sas yéenee jox ji am na xam sax du xam nga dama waxut ak woon ci exilus yëpp musuma wax. moo tax ma lay génneel tuuti te su ma waxul da nga ne guy gi dafa réservé wu mais dama lay génneel yow li nga xam ne mais da ngaa a génn nga toogal te Babacar xam mais buñ demee ba combat bi des benn weer waaw boo ma xoolee waaw da nga ne guy gi mii ti la pare il est barke Cheikh Tidiane ti la pare il est mooy jigéen a góor ti la pare yaa ngi posé wu pare na déggoo ma maa ngi lay dégg bu baax voilà ti la pare mais il a pare mooy jigéen il mooy jigéen jigéen waaw ti la pare ti la pare ti la pare voilà. ok faaw nga def philosophie Babacar. waaw yow dama philosophie de. philosophie mooy lan man nag maa lan mooy. philosophie mooy. mooy lan. tey Babacar ñëw nga toog. waaw Babacar ne ma guy gi. man la yàlla am na Babacar ne ma ana yàlla. man la yàlla ngi nii nga ma fan la yàlla nekk. yaa ko gis mais étude la boo xam ni yaa ngi koy dox sa mémoire di ko di di di ko tas moo tax bala ngaa def bac un mois nga def philosophie philo. philo yi noonu la ñu mel. deux deux mois wala trois mois nga def philo. philosophie noonu la ñuy dundee. waaw noonu la ñuy dundee. boo leen am loolu mooy philo xam-xam philosophie mooy xam boo xam ni baaxul da lay weddiloo. Hmm. baaxul xanaa xamoo loolu. Ah. moo gën soof ci xam-xam yi da lay weddiloo. maanaam loo leen ne lii la ñu ne loolu leer waaw moo waral léegi-léegi ñi ngay gis nii ñu xaw weddi sëriñ si loolu la dañuy wax dara nii sëriñ wax dara sëriñ mi nga gisee ci baatin waaw ñoom it seen baatin moo gën a xóot loolu xam nga sëriñ léeg-léeg mu gis dara loo xam day xëy na nangam ñu ni kii li est-ce que li mu wax nangam nangam nangam nangam doon borom xam-xam nag ñoo leen déglu ci télé ak rajo yi mais di ngeen di day bari parce que ñoom xamam philo la jàng xam nga gis ni ku yàlla wàcce directement rek muy wax yow xam nga ay philo waaw yow saa philo professeur lycée Limamou Laye bu kii bi philo la nekkoon na TFM ak yeneen ak yeneen man philo yi laay toogal lu ci bëri ah, parce que li soxla li wax dañ koy soxla ñoom li ñu soxla dama li kii dama ci soxla ay mots quoi. Hmm, daa loo soxla ci ñoom am soxla ci yow mais soxla ma lépp. ok hmm. mais ba tey wax nga ci côté bëre bi. Hmm. ci rëg waaye ker dama ko liir ci journal sunu lamb nee na côté xeex moom bu ci sax xalaat ndax yow yaay ki ko mën a corriger wala nga koy jubbanti ci xeex. néew ma la damay corriger rek rek leer. rëg-rëg dafa def ay vocal. daan ni waaw. bu doon tey day bëri ak Sa Thiès dinañ def quinze millions bu dee guy gi cinq millions. te da koy te dina ma duma humilier ma balaa làmb jëm. dafay dégg lu wax li ma la wax dëgg wax lii. ay vocal déggoo benn bis nee na dama doon onze pour jàpp moo tax mu wax loolu. bi ñu di wax weddiwu ko ma ne ko comme que loolu am na baal ma dem defewaat sama bopp dem jàngi xeex man la combat bi xeex laa indi États-Unis xeex laa fa jàngoon musculation macha allah tous de bois ana ana ana bant bi am am naa doole ba pare bant newul foofu bant tuus de banta ngi ne sa giraaw jox tuusal leen ko bant mu tuus li waa la wax de bant bant bu dam biix ko xam ko na nga yaa may ñaan yàlla day gàtt daa daam bàyyi ko jox ko bant nena daal di tuus di bois jox ko porte bi porte ngi nii sa ginaaw tuusal di bois rek boo ko yóotoo jot ko comme ne nga da ngay tuus di bant uure bi ma ëwee ko fii sax tuus de bois voilà tuus de bois ci côté xeex bi tuus ci côté xeex bi mu xeex laa jàngi woon ñetti entraîneur la amoon yooyu yëpp nañ ko doxanteeg suuf mais daal li wërte woo mais moom lan moo tax mu ne bu doon Sa Thiès dina ci def 15 millions mooy bu dee yow la 5 millions. nawloo ma. Reug Reug te lekk sa avance. non non nawloo de wallaahi nawloo bu tëddoon ba guddi mu guy gi koy daan bu tëddoon ba guddi nga ne ko guy gi duma mun la góob soo ko nee guy gi koy duma mu ne ankay loolu mooy ñàkk ndaw loolu est-ce que gëm na ni mun naa ko daan gëmu ko te man gëm naa ni mën na maa daan loolu mooy ñàkk ndaw pare ci côté ci ban côté. damay laajte. non ci ban côté yow mi gën laa pare ci ban côté. non maanaam parce que bu nee mystique ça veut dire dañ ko gis mu nekk mbër bu nga xam ne. dafa gëm ah, gàllaaj non pas gëm ga nu waxuma ay gëm ak ñàkk bi. te hmm. lutte simple boo ci nekkee yàgg ci région ci ça veut dire que am nga nga doole. Babacar moom daa bàyyeegul lutte simple. kan man moom. rëg nga koo gis. mu bëri de waaw d'accord man da ko waaye boo seet ñaari année la rek. waaw man ba ma cay toll Babacar. waaw ba ma jee tool Babacar. waaw kenn du ma tëkkaleeg sama moroom ba dama bëri mbapat ñu te ñu bëri dama leen daan du ma toog fi nag di ay tuut ay tuut da a tuutal. Babacar dama takk ngemb gala du ma wër ma jàppale arrêté budd la ba jëkk a dóor suuf du ma échauffé wu fi ma taxaw lay taxaw dëngal tànk yi takk pétaaw yi. arbitre la ma ñodd la ba nga ñëw yenu dóor suuf. ah nan nga doon bëree mbappat yow. ma laa doon bëree mbapat Ada Diallo Mbaye toj naa ko. Bousso am na au passage di ko nuyu way bu ma daan way su ma mosaan way ku may bëreel naa la daan. wan way la. gis nga newul tàndangara sunu xaadima. waaw waaw moom na way waaw fa laa yem nag. déet non waaw way nag da nga koy du ma waykat yow Bousso waykat bi du nekk fii di way ñu may dugg ay tiktok ak yooyu du ko def. fa laa yem moom dugg fa du dara. dama fay bañ a dugg nag parce que temps yii maa ngi doon benn émission ci moog yooyu gars yi dugal ma tiktok tax ma rek. mais léegi fi may jeexale ci rëg-rëg. mooy nee nga côté xeex bi ak yooyu mystique bi yooyu yëpp kii nga ko nee nga bëre bi ku dàq bëre yéen ñaar yàlla na daan xeex bi tamit nee nga jàng xeex États-Unis moom bu bëggee sax ñu jàpp moom mu jàpp ma jàpp bu bëggee ñu xeex ñu xeex sans départ ci moom comme moom neen daa mën a jàpp mu jàpp ma jàpp képp ku dàq jàpp ci bëri yàlla yàlla may ndam képp ku gën a diis sa loxo sa moroom boo ko dóoree yàlla na daanu ma yombal la foofu point barre dama ci beneen. mais est-ce que tamit yow ci côté mystique boobu ngay wax. dama lay gis loolu de bu ngeen di daje non d'accord naa mais dama gis seen ay daje dama gis. loolu sax yàgg naa la gis nga yor sa benn affaire xaw ma yet la xaw kaan la. noonu nga ko gisee laa gisee bàyyi ji bi moom ma ko joxoon bu cana ba au ko nuyu moom ak sëñ Adama Seex imam Madiou Baye Kang Cissé. et puis guy gi da nga am confiance booy dégager bu garaaw de sëñ as borom digal te xale ngay bëreel aada sëñ aada Seck borom sëñ aada Seck euh, mu képp koo xam nekk na cana ba Ibra Dieng nekk canaba di jàpp ci combat bi ah maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ay kilifa taxaw ci combat bi jël seen course di ma ñaanal te yàlla tax. xale ngay bëreel de. di nuyu tamit sëñ Bas sëñ Bas ñaaxaar sëñ Bas al euh, soppe yonante bi sëñ Bas bu baax maa ngi koy nuyu sëñ soppe yonante bi moom moom nit ku baax la sëñ Bas Fall borom ñaaxaar ñu ngi koy nuyu bu baax a baaxa a baax a baax a baax. mais xam nga ne xale ngay bëreel. mais li ma ko magee bëriwul rëg-rëg doomam léegi léegi mën naa ko takk sax léegi man mën koo takk rëg-rëg daam doom doom léegi ma mën takk mag la rëg du xale bàyyi leen xale xale xale su ma juumul suma ma juumul jabaram bu mujj bi mi mu doog amaat jabar bu mujj li ma wax bu génnu na génn demantiir am na doom wala amul doom ëmbalul nag na leer bala ñu naan guy naam dafa takk farial sulu ma xam am doomam tasa takkaat no ak ah, kon yëgoo ko na la am na loolu topp da topp ay mbëri ku ci jël mbër di nga topp koy tegal muy wax moom déggoo weddu ko nee na dama doon onze kon ni ngay jën mu ñëw moom moo ko wax mais onze na jën boo xam du ko lekk da koy fot bii nii du da koy fot c'est trop cher ah, pour toi dama lébu la de waaye déggoo li la wax du jën yëpp la lekk katu mbaal la dem katu ko lekk bokku sax seen tuur jën bi ci la bokk du lépp ngay lekk de boo gisee lu ñëw nga lekk da ngay fot de yow mi am na plate yow bëggul de ci ci ci ci ci ci ci lekk ci lekk léegi la ñu tegal loo xam ni taalibe moo la ciy bàyyi rek mais boo ñaa ñaaxaatee ñaaxaat sa kii bi boo jógee da wut leneen loo lekk lu chaque jour ñu jox la plate nga la mel ne bii ci plate yi mu gën a mu gën a bañ mu onze ko la mu génn mhm. gañ jël la doon def gañ jël waaw gañ jël la loon def am na solo li mu wax ci rëg rëg leer na mm. léegi damay ñëw ak yow ci loo xam ne nii maanaam fi nga dëkk muy géejawaay mu mel ni nag bala ngaa départ ci rëg rëg waaw nit ku baax la rëg li nga may wax lépp ci respect la koy teg ak làmb ah waxi làmb la lay wax waxi lay wax wax dëgg yàlla non musuma dépassé des fois boo waxee ba ci biir sax bu jeexal dina ma sànni xeer comme man ni ma koy defee mais lu mu gëm la man lu ma gëm la bis bu mu fonk la bis bu ma fonk la mais maa koy wax ni ko carrément respect bi ma jox gis naa ko jéggiw su ma jéggoon rëg-rëg ba tey man xam nga ma sama làmmiñ maa dàq ratatat comme mété kon dootu ko defeti mais lépp cadre làmb la moom ak ñiy wax ci moom ak yëpp wax dëgg yàlla lépp lu ñu ma wax làmb la dama koy accepté MMA ba tiitalu la ci moom bi bi ko waaj dóoree noonu déet moom kay moo daan mooy dóoree non bi ko nañ ko booba nit parce que ne nañ waaj da koo dóor lu àndoon normal dañ ah, ko ah, liir ci ah, journaux yi bàyyi yooyu gëm yàlla waaye tamit nit day nangu defal yooyu loolu waaye la rek xam naa dafa ñëw mais jàpp na fi benn waay bu garaaw dóor ko rek rek boobu noonu man maa gënam lu ma naqari barke Seexu Tijaan dama doon ay trois heures deux heures lekkuma parce que man nous sommes des sénégalais man Sénégal laay supporté bari rek demee supporté ma ko ba mu génnee jël drapeau Sénégal sa yaram dafa daw xam nga mais keroog du bisam nit ki chaque jour doo am sa bis loolu ni yàlla na nekk cangatam ci combat boo xam dama koy daan mu sedd guy. Hmm. <laughs> waaw waaw sangatam. loo xam dama koy daan mu sedd <laughs> guy maanaam da nga bëgg ne kon bés bi bañ a bañ a doon bésam bés bi du doon bésam. non bis bi may daje ak bi bés bi ngay daje ak moom. bis boobu la ko dal foofu. waaw yàlla na nekk dóor yi ma ko waroon dóor rek yooyu pour yóbbu ardo beeg mu sedd guy ma jàpp ko rek daan ko gën a loolu laa koy ñaanal moo gën a sedd. am na solo.